gorwa na nde ba fiye.
Ayaya, me yaliyo gorwa na mo nde ba fiye.
Ayayya, ayayya gorwa na nde ba fiye.
Ayaya, me yaliyo gorwa na mo nde ba fiye.
Ayayya, ayayya gorwa na nde ba fiye.
Ayaya, josani darwa den buk mo kanya.
Ayayya, ayayya gorwa na nde ba fiye.
Ayaya, josani darwa den buk mo kanya.
Ayayya, ayayya gorwa na nde ba fiye.
Ayaya, ketan me yale na ken yigate.
Ayayya, ayayya gorwa na nde ba fiye.
Ayaya, ketan me yale na ken yigate.
Ayayya, ayayya gorwa na nde ba fiye.
Fat no no no, Yeah.
fat no no no. Na ima papa, seren kizida. Fat no moje, ma moje, kaba moje, kira moje. Ay seri moje, tole tuyai. Ay ay ay ay ay ay. Jida pabno, hado jida. Daga ojot na lip, kabo kuko. Katin binne jaw pa token yegater. Ay ay ay. Ay, ay, ay, te gano el diablena que llegate. Tira famno, hano jira. Padanga oyot nani, meda bongo. Katin binne yaw kato ken llegate. Ay, ay, ay.
jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel si Séeréer rajo ñu nekk fii si Angleterre seen émission Seet si ma Makayre Ndiaye ñu gën ko xam ne si di jëmaak di koy animé tey jii nii nag ki nga xam ne moom moo nekk maire Fatou Sarr Thialane nekk koo xam ne car macha allah si wàllu aar kenn du ko présenté ci Sénégalais yi tey nag ñu ñëw seet si ko gën a découvrir kan mooy maire Fatou Sarr Thialane ak groupe am maire Fatou Sarr na nga def.
ah diggee dama sant yàlla julli ci yonent bi maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Séeréer rajo di leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ko ñaanal mboolem jullit ak ñi fi teew ñëpp.
Euh, seen groupe bi nu mu tudd.
waa groupe bi mooy groupe Fatou Sarr Thialane yàlla yo góor waa kon yéen a ko déggandoor euh, maire Fatou Thialane yaal yo góorwa euh, mu nekk loo xam ne nag li mu tekki si euh, olof nañ euh, nax ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, góor ñi Euh, tey jii nii nag ñu ñëw fii nii euh, ànd ak ñoom en live da ngeen ko dund bu baax a baax gamb nag dafa am solo si cosaanu séeréer séeréer nag lañ ko gën a xamee euh, tey nag ñu ñëw fii ñi nga xam ne kar macha allah si wàllu euh, culture bi ñu ngi si yëngu bu baax ba buñ bëggoon a xam maire Fatou Thialane moom mooy kan.
waaw man may Fatou Sarr Thialane dëkk Thialane di séeréer di ñoominka yàgg ci aar bi lool nag mag ñi may ànd ak ñoom Fatou Fa Sadio Thior ak ñoom Ndeye Fade ak ñeneen ñi nga xam ne ñëwuñu ñu sant yàlla nag gërëm yi suñu ndey ak suñuy waajur di sant sama jëkkër di ko ñaanal gudd fan ndax lépp moom la waaw.
est-ce que mën nañoo xam création groupe bi da nga toog a toog si biir famille la wala nan nga jëlee ñi nekk si groupe bi.
waa dëgg la euh, groupe bi lu yàgg la ndax man dama yàgg di woy ba ma nekkee xale c'est que damaa ñëw sëy si fii rek affaire bi gën maa dugg ma doon na ko sama papa di ko def ndax sama papa da doon woy ay panaal di woy ay jow te dëkk bu ñu dëkk ci boobu seen jamono kon bu ma toogee léegi bay wari waru jaaxal kenn ma ñëw fekk fii samay groupe sama rakk yu baax yi ñoom Fade Sarr ak ñoom ñim Massar ak ñoom Fatou Ngodaan ak ñeneen ñi nga xam ne ci groupe bi lañu bokk ñëwuñu teewee ñooñu ñëpp ñu formé leen di liggéey liggéey bu rafet ñu jàppale ma nag fu ma leen woo guddeeg bëccëg ñu nga fa liggéey waaw ci mun nga see ñëw ndax da nga jékki-jékki rek euh, def ko wala dafa am koo xam ne moom moo la ko xelal nan la demee ndax am ngeen ay kayit wala amu leen ay kayit.
waa dëgg la ñun am nañu suñu kayit waaw bu dee affaire droit d'auteur yooyu yëpp am nañ ko ndax bi ma affaire bi duggee lépp daal ci yàlla la daal waaw damaa ñëw fii sëy si di ko def yàlla daal moo ko ubbi ci suñu xol ñu di ko def ànd ci nag doon benn waaw di wéy Euh, lan moo indi tur bi maanaam euh, yàlla yoo góor waa.
waaw yàlla yoo góor mooy nañ nañu nax suñu jëkkër yi rek ndax boobu jamono léegi jigéen ñi kenn sayatul ndax suñu maam yi ñoo gënoon a sonn ci sëy te dañ doon muñ di muñal suñu jëkkër yi di rooteekat taxan lu ne daj nañ ko seen biir sëy kon jamono bu ñu toogee ba suñu jëkkër yi ni ñu indi lépp war nañoo gën a sant yàlla te ndax suñu jëkkër moo tax ñu jël groupe bi duppee ko loolu yàlla yu góor waa ci séeréer Euh, si sa kaddu da nga ne sa wayjur bu góor daf doon wëy ay panal ndax euh, lan moo la boole ak euh, li nga xam ne moom mooy togg.
waa toog dafa nekk suñu cosaan même kii ma àndal muy Fassaajo Coor mi wax dëgg yàlla boo déggee jur joor juuf ba ñu duppee école joor maamam la woon te da doon tëgg ay gamb gamb nekk loo xam ne cosaan la ndax kuy fal buur moo lay tëggal booy yóbbu ceet gamb moo lay tëgg lay accompagner léegi ñu yàgg ci aar bi nag di ko def fekk ko suñu maam booy sang seet booy yóbbu seet booy ceetal gamb lañ lay defal mu nekk loo xam ne day law ndax leket la moo tax ñu fonk ko topp suñu maam yi ak suñu cosaanu baay yi ak suñu cosaanu ndey yi di ko def diggee.
est-ce que gambu maanaam euh, tëgg bi benn la wala waa dëgg la am na ceet ni ngay muuree seet ak ni nga koy lelal yëpp am na tëggam waaw am na traditionnel comme nii nga ni nga ko bëggee ndax gamb dafa nekk loo xam ne aada la ñu fekk nag suñu maam yi di ko def ñu fonk ko nag ndax lii ñuy def dañ cee sant yàlla ndax amoon na temps gamb dafa da yemoo ci suñuy maam rek ñu sey si fii di ko def jàppale ci nag di dem stade di def ci làmb yi di ko peinture nii maa ko njëkk a def fii Sénégal verte sondus drapeau Sénégal ñoo ko dekk ñoo ko njëkk a def ba da- tax na ñu bari di ko def léegi mais amoon na temps dañ ko doon def sa booy dem xale yi dañuy raay ay gamb yi di ko xool ñu gëm lu ñuy def nag gëm ko nag yaakaar ci yàlla ak yonante ba groupe bi ñuy liggéey ba yàlla def na ñëpp di ko tegg léegi cosaan la nag ci dëkk yi ili suñu dëkk maam yi cosaan la mais li ko gën a fesal tam ñun ñi ci lañ bokk tey mun nga ñëw wax maanaam gamb gamb si boppam euh, bon am na ñu koy gis te xamuñu ban garab la ñu ñëw si maire Fatou Thior euh, gamb est-ce que mun nga ñoo ñëwal wax ñu ban garab la ak nan ngeen koy euh, dindee ba tey ji ni ngeen koy tëgg te du am benn jafe-jafe ah Dijé ma kontaan naa ci kàddu yi nga wax di sant yàlla sant yonante bi sant suñu ñaari waaju sant suñu jëkkër yi gamb nag moom li mu yóbbu dafa bari ndax gamb parce que mooy lekket mooy lekket bi nga xamante ne boo ko xaree mu doon ñaari lekket léegi boo ko bëggee def gamb ci jumbax bi ngay dagg rek muy gamb amul benn jàppukaay nga jàpp ko xoos ko weer ko ci naaj bi def say karité ba mu wow nga commencé di ko tëggan ndax ngir mu am soo loolooy gamb gamb nag doon suñu cosaan loolu nag ñun dëkk il yi lii mooy suñu cosaan comme ça ni ko Fass Sarr waxee sànq. gamba mais lan moo waral karité gi ni ngeen si diw ak yooyu karité bi boo ko gisee ñu di ko ci diw suñu maam bi nga ko doon tëgg te ko daan diw ba mu tooy xepp teg ko ci naaj ba ne karité bi diw bi mën a dugg ci biir leket bi bu duggee ci biir leket bi nag ba mu wow boo ko tegee loolu mooy génnee son boobu ngay dégg ci biir gam- gamba bi ndax man sama maam da daan tëgg leket bi di raam ak moom di wax ak moom ba bu koy déglu sax nga xamante ne gamba bi lii ak lii lay tëgg.
Euh, maire Fatou euh, Thior moom itam mu bokk si groupe bi nga xam ne moom mooy Yalyo Gorowa euh, tey euh, maire Fatou Thialan nekk leader vocal bi moom mu bokk si ñu koy këral bokk aussi itam ñi nga xam ne ñoom ñoo koy euh, tëggal Euh, ñu ñëw fii nii si euh, këram def si fi émission bi di leen di fàttali ne yéen a ngi seen émission seet si ma tey euh, Makayre Ndiaye alliance di jëm ak di leen koy euh, defal maire Fatou Sarr est-ce que mos nga tëgg gambu ba mu toj.
ah gamb nag déedéet suma tëgg gamb bu mu toj de waaw Est-ce que bu tojee am na lu muy def.
waaw ndax mag yi dañu naan bu tojee bu amul sens mën nga cee feebar ndax dañ koy leemu balaa ñu koy tëgg ndax gamb kenn du ko tëgg noonu rek ah kon da ngeen di léemu gamb bala ngeen koy tëgg.
boo déggee ne toj na rek xamal ne ku ko xamul mooy ñëw tëgg ko noo xam ne du noonu mu toj mais gamb dafa am teggin dafa am teggin moo tax d'accord est-ce que tey jii nii yow comme ni nga commencé def naa ne professeur nga si wàllu gamb euh, tey euh, ñi nga xam ne yaa ngi leen di dégg ñuy tëgg wala nga leen di seetaan ñuy tëgg yenn tëgg ñi nga xam ne wóor na leen ne la nekkul nii la ñuy tëggee gamb des fois est-ce que du lay métti ba nga mu bugg a jóg wax leen ko wala da ngay toog fi ngay toog.
waa dëgg la diggee mais fu mu ne nii dëkk bu ne ak ni muy teggee dëkk bu ne ci biir île bi ku nekk ak ni muy teggee gamb waaw moo tax ku ci tëgg rek da nga xam ne bii dëkk bii dëkk sàngam la mooy tëggee nii ñu ni suñu tëggin tamit ak suñu est-ce que laajul des fois ngay euh, tëgg yeneen tëgg yoo xam ne du seen tëgg dëkk pour nga mun a satisfaire ñeneen ñi nga xam ne si dëkk boobu lañ bokk wala yow euh, liggéeyagoo si côté boobu.
waaw bu dee ay maari dong tamit ak suñu ak suñu teggin lañ ñun ni ñuy teggee maari dong ci ceet loolu dañ koy def ci suñu cosaan la boo sangee seet ba pare maari dong bi moom ngay njëkk a commencé boobu tamit tegginu boppam waaw kon euh, ba léegi rek ñu ñëw si ki nga moom moo nekk Fade Sarr moom itam euh, mu bokk si euh, groupe bi euh, Fade dégg nga li nga xam ne Fatou Thior wax na ko dégg nga li nga xam moom mooy seen leader vocal di euh, maire Fatou Sarr bu Thialane wax na ko moom mi nga xam ne moom moo nekk kilifa groupe bi lan nga ñu mun a yokkal si li nga xam ne moom mooy wàllu gamb.
ba ñu yàlla dimbalee ba ñu taseeg yow sant yàlla suñu borom sant suñu borom kër maa ngi gërëm suñu groupe bi ñuy ànd Fassar Thiala nekk koo xam ne papaam ak sama yaay ñoo bokk mais mu nekk koo xam ne ku nangoo uuf ku nangoo yor ku mun a muñ kii mooy garme mais wàllu gamb mun naa waat ne fii ci ginnaaw raay ñun ñoo ko gën a fesal gis nga gamb lekkat yi tey sax ci àll dañ koy jëmbat muy sax di law di law di law di law ba meññe ba nekk doom di mag di mag ba nekk leket leket boobu bu demee ba mag boo soxlaa leket boo ko xaree bu ñoree boo ko xaree mu doon leket mais boo ko soxlaa mu nekk gamb ci jumbax bi Fatou Thior waxee ci jumbax bi ngay dagg dindi li ci biir roppati ko ba mu set fomp ko ba mu set diw ko carte comme niñ suñu maam niñ ko daan defee door ko utiliser léemu ko door ko utiliser di ci jëriñu keneen di ci jëriñu di je jërëjëf Garmi nga.
jërëjëf Garminga kàddoom la muy Fadé Sarr bokk si groupe bi nga xam ne moom moo nekk Yàlla Yo Gor Wa tey jii nii ñu ñëw fii nii fekk si leen si ginnaaw raay ki nga xam ne nag mooy seen leader vocal di maire Farsad Thialane mu nekk koo xam ne liggéey bu rafet la def si li nga xam ne moom mooy wàllu culture mais aussi tam ñoom seen groupe def ko traditionnel mais itam mo si modernisation ndax nag dañ ko ànd ak ay sabar ak lépp ci biir ba nga xam ne tey jii nii animation car macha allah mbokk yi ñuy bàyyi xel si Séeréer rajo ma ne leen Séeréer rajo nii rek lay continuer ak yéen fépp foo xam ne séeréer da nga fa fépp foo xam ne cosaan ak aada la dina déplacé wu ñëw jël si leen Mère Fatou Sarr est-ce que mun nga ñëw wax rek ba nga demee commencé di tëgg ban manifestation nga mos a dem foo xam ne nit ñi ñëpp dar la nga commencé tëgg ba askan waa kontaan sa première manifestation est-ce que mun nga ñu ko fàttali.
dëgg la ñun jigéen boo ma laajee loolu dinaa ci sawar. car macha allah ñun yàgg nañoo tëgg ci biir manifestation. ndax dem nañu ba hôtel King Fahd Palace fu ne dem nañ fa moo wëññee fii fii lay yendu fii ba Fuuta Añaam Cole dem nañ fa ak feneen ak feneen ak feneen foo xam ne ay kilifa ñoo fay teew dem nañ ci làmb ji fu ne lañ ñuy woo macha allah yàlla xeb dolli. ñoom ma nga ñëpp ay séeréer lañ di suñu càmmiñ lu mu xewle boole ñu ci di ñaanal ñoom bañik njaay ñëpp lu ñu xewle boole ñu ci macha allah ak ñeneen ak ñeneen bu ma limee damay jub mais sa première manifestation maanaam bi nga demee ba commencé di tëgg tey yaag sa groupe ñu woo leen ne leen kaay leen tëgg nga war a ñëw animé foofa nga xam ne moom mooy public ba ndax jour boobu noonu sa première manifestation ñëpp dar la tiitoon nga wala tiitoo.
waaw booy door a commencé dara na foog nga am xaw a am xel ñaar ci dara mais dañoo dem a dem ba ti tàmm ko daal public daal jaaxaluñu liñ ci mën yëpp dinañ ko def ci suñu kemt lay kat à part tëgg bi woy def si am est-ce que woy yi nan ngeen koy programmer ay thème ngeen di jël wala da ngeen di tëdd rek yeewoo ak moom rek nu leen neex rek ngeen woyee.
déedéet ñun dafa am suñu woyin dafa am loo xam ne moom la ñuy commencé moom la ñuy commencé ba ñuy woy waaw ba pare na door a commencé suñu tëgg di ànd ak suñu géwél yu ñaawul yi fu ñu leen woo wax dëgg yàlla yàgg ak ñoom tamit ñu gore lool macha allah fay biram per la waagaar dugg dugg waagaar xànjar waagaar ñoo gore ndax lu olof njaay defe ne lu yàgg lu ne dëgg la di ñaanal ñi may àndal na gudd fan ak weer na toppuñ ma ci dara fu ma leen woo rek boo leen gisul xëy na dañoo amul jot ndax benn lam tamit du yëngu mais fu ñu mun a taxaw rek dañuy woy macha allah kon li ñuy def mooy bala ñuy ñëw si tambour major bi dama bëgg rek ngeen ñamal ñu benn morceau boo xam ne yow yaay xool rek noo koy génnee ak foo koy fëlee kon bu defee ñu ànd ak groupe bi nga xam ne moom moo nekk Yàlla Yu Góor Wa Mère Fat Thialane nekk leader vocal bi tey ñu seet si leen fii nga xam ne moom moo nekk ginnaaw ray di leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak rajo bi nga xam ne moo ànd ak jamono séeréer rajo directeur Tamsir Diouf maa ngi lay nuyu bu baax a baax aussi fàttewuma personnel bi nga xam ne vraiment ñoom ñooy ànd ak ñun Demba Sène maa ngi lay nuyu bu baax a baax morceau bi nag maa ngi koy jox Modou Fall fàttewuma aussi Doudou Diouf ak ki nga moom mooy Layti Sène di nuyu bu baax a baax Mousoukro Sidibé ak Khady Baz fàttewuñu ki nga moom mooy Laykan Diallo tukulóor bi nga xam ne moo nekk si biir séeréer yi maa ngi lay nuyu bu baax a baax Jokkel Laba Ngom mexe sim na nga baax a baax nay mbika rek i continuer fo xek ante dafa Mère Fatou Sarr Thialane groupe am Yàlla Yo Gor Wa bismillah Afrique day nooyo dige makawa diida Afrique day nooyo Senegal ay nooyo tigo tigo yawa dokin bota yokke jegona Afrique de inoyo diyama gawati Afrique de inoyo diyama gawati Kodi go yawa no ki bete yokke jibona Afrique day nooyo dige makafa diida Senegal ay nooyo sereer we madiida tigo tigo yawa dokin bota yokke jegona Afrique de inoyo diyama gawati Afrique de inoyo diyama gawati Kodi go yawa no ki bete yokke jibona Afrique day nooyo Sénégal ay nooyo Afrique day nooyo Ilimane day nooyo tigo tigo yawa dokin bata yokke jegona Afrique de inoyo musokoro watida Afrique de inoyo tin foya watida koti go yawano kin bete yokke je gona Afrique day nooyo musokoro watiya Afrique day nooyo tere rajo ibadida Afrique day nooyo tere rajo ibadida tigo tigo yawa dokin bata yokke jegona Afrique de inoyo Afrique batida Afrique de inoyo ijama ka watida koti go yawano kin bete yokke je gona Aywa
jërëgéen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel si rajo bi nga xam ne moom moo nekk séeréer rajo lii ngeen dégg fii nag toujours li ma leen wax rek ne en live la ki nga xam ne moom moo nekk maire Fat Sarr Thialane ak groupe am bi nga xam ne nag car macha allah mu nekk groupe bi nga xam ne moom la sénégalais yëpp di bàyyi xel groupe bi nga xam ne aussi itam dem na fu nekk bégal na ku nekk moom moo tax tey séeréer rajo déplacé wu émission bi ñu woowee seet si ma ñëw seet si ko tey fii nii maire Fat Sarr gis nañ bi ngay woy nga toog ba mu yàgg nga jóg est-ce que mën nga ñëw wax lan nga sant si biir.
ah damaa xar ci affaire bi daal. waaw moo tax ma toog ba mu yàgg rek ma daal di jóg. ndax damaa kontaan sama xol fees xam ne ñun séeréer amuñu dara lu dul cosaan ak aada.
d'accord est-ce que mën nañoo ñëw nga wax parce que si séeréer nga doon woy morceau bi mën nga ñoo wax lan la wundu maanaam dañu dégg nga ne Afrique Inorio ñu xam rek morceau bi lan la.
waa dégg la boo déggee ma ne Afrique jóg leen. ñun ay séeréer lañu fonk cosaan fonk suñu aada gëm lu ñu doon kon nag digge bu ñu nekkee fii dañoo war a jóg ñun séeréer yi mobilisé doon benn kontaan nag ci rajo bi nga xam ne mooy séeréer rajo bi nekk Amérique lii muy def ci biir séeréer yi ñu jàppale ñu gën ñoo jàppale daal ñu dem ci kanam ndax dañoo kontaan ci ñoom loolu mooy suñu doole di la ñaanal yàlla nag yow miy toog yal na yàlla guddal sa fan waaw liggéey bi li nga ci njort yal na la ko yàlla defal ci darajee njool ma est-ce que maire Fat Sarr Thialane mos na am benn morceau boo xam ne mos na koo génnee nit ñi di koy déglu wala ba léegi amagoo benn single.
dëgg la defoon naa maquette maquette baa ngi fi. boobu ba léegi ne damay ñaan yàlla rek ñu jàppale ma. ci yéen mi toog ak séeréer rajo nañ ñu jàppale ndax artiste séeréer yi tamit am nañu tanaa mais nag jàppale bi moo xaw a des da benn lam tamit du yëngu. waaw est-ce que mën nañoo xam morceau boobal lan nga si woyoon lan moo nekkoon thème yi morceau.
waaw woy boobu li ma ci njëkk a woy mooy suñu maam yi rek. mooy yaal yo góor waa bi rek morceau la rek ñu tuddee ko suñu bopp tuddoo ko suñuy. ak beeba mbalaa yu xambaañaa loolu tamit suñu maam yi dañuy nekk ci dëkk ba di dem ci biir géej gi di jóg gaal dugg ci biir màng yi di wut paañ di wut ay yoxos di wut ay yéet te loolu lépp mun na leen cee fekk mais loolu am jom te boobu jamono da ngay rooti da ngay dem béy. da ngay ñëw bot sa doom loolu yëpp dañ na fi tey kon suñu maam yooyu dañ leen di ñaanal yàlla fa ñu tëdd yal na leen fa yàlla yeexuñu
maquette boobu noonu nga defoon mun nga ñëw wax ban studio la ak tey jii nii nii nii nii ndax ba léegi maquette baa nga tëdd fa mu tëdd rek amul kenn ku la si jàpp maa nga fa tëdd rek waa studio Matar Ndiaye jakaru Faat Lawbe ñoo ma ko defaroon ak ñoom sil géey bi nekk géejawaay maa nga fa rek tëdd di wut nag ku ñuy jàppale ndax xam nga sax booy liggéey ati at def sa maquette mënoo ko bàyyi rek muy asaaloo ci réew mi rek boo amul ku la ci jàppale rek da ngay ñaan yàlla rek am ku la ci jàppale.
pora bi di déglu rajo bi nga xam moo ànd ak jamono muy séeréer rajo ndax ñoom tey bu wax ji nii buñ ko déggee woo la téléphone pour jàppale la si maquette boobu da nga taxaw mu.
waaw loolu loolu diggee dina ma neex dañuy ñaanal suñu mbokk yi fa nekk yépp fii ba France di nekk ci diaspora bi yal na leen yàlla jàppale fa ñu nekk lépp nañu leen yàlla yombalal dafa ñu fi nekk Sénégal ji te ñu ñëw jàppale ñu buñ ñu jàppale rek dinañu dem ndax séeréer li ñuy def lu ne dafa neex culture séeréer neex na am na talent mais jàppale bi rek moo xaw a des waaw nañ ñu jàppale ngir yàlla d'accord waaye yaakaar nañ leen Euh, yaakaar nañu leen euh, maire Fat Sarr euh, Thialane euh, moom moo yëkkati kàddu yooyu mais dañu dem si ki nga xam ne moo nekk moom moo nekk maire Fatou Thior moom itam mu ñëw si li nga xam ne euh, tey jii nii gis nga ko euh, maire Fat Sarr wax na si single bi nga xam ne def ngeen ko ay at yéen a ngi koo teg si seen euh, valise mënu leen a fexe ba génnee ko tey euh, lan ngeen di xaar dëgg-dëgg si askan wi nga xam ne ñu ngi leen di déglu te ñu gëm ne séeréer la ñu te war a jàppale les artistes séeréer.
ah di jama loolu boo ma ko laajee naa ci sawar kontaan lool ndax single bi maquette bi yàgg na trop trop trop trop ndax dañoo ñàkk amuñu ku ñu jàppale di ñaan nag séeréer rajo bi nga xamante ne te lañu yàlla booleeg yéen ngeen mën ñoo jàppale ci maquette boobu ndax am sa maquette togg ko ba mu ñor war koo yàq te amoo foo ko yàqee métti na te yéen lañ ci yaakaar waa diaspora bi ak rajo bi nekk Amérique ak ña fay liggéey yépp ñoom la ñu yaakaar nañu jàppale lillaay war a suul yi ci suñu maquette boobu ndax ñu mën cee am dara jërëgeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel li ñuy def mooy que ne dañuy dem si ki nga xam ne aussi itam moom mooy euh, Mamadou Faye Faye Biram moom mi nga xam ne tey jii nii ñu laaj ko rek euh, Mamadou euh, maanaam wàllu tëgg ngay ànd ak euh, li nga xam ne moom moo nekk gàmb yi.
waaw affaire gàmm moom yombul moom balaa balaa di xew sax maa ngi ñaan yàlla julli si yonante bi sant samay waajur ñu nag ay doomu séeréer lañu juddoo Joal tëgg bi nag boo vraiment jànguñu ko dañ see judd ndax ba demee fii ay Joal ak ay Fatick ay Ngéñeen Tukaar suñu waajur yi foofu lañ jógee ki leen dox góor gi jaañ kooku moo santoon palmarès sant fépp jur suñu yaay ñu si ka jaañ ñun nag vraiment aar bi dañ si yàgg trop mais nag bu sañoon am ku ñu jàppale quoi parce que ñun ay séeréer lañu dañoo xam aar cosaan te séeréer la jógee mais nag dañoo toll foo xam ne boo amul aar boo si nekkee te amoo ku la jàppale moom ah vraiment day xaw a doy waar ah ñu ñaan yàlla tamit yooyu nga jàpp si rek yàlla jàppale ñu waa Sarr yi yàlla moo ñu bon yàgg nañ trop waaw muy sama jigéen di sama ñoom ñoom ñëpp sama sama jigéen lañu yàlla ba ñu bokk ndey ak bàyyi di ànd dem fu ne xëy nag jamono bi nga xaw a doy waar dama ne dafa demee noo xam ne rek bon jot amul aussi tamit am ñu ku ñu jàppale si aar bi mais ba tey ñu ngi si nag parce que moom lañ gëm moom la ñuy noyee moom la ñuy nelaw d'accord bon boo demee si séeréer yi guitare yi ñu ngi doox gars yi ñu ngi def ngel yeeg yooyu mais tey gambu euh, dafa nekk cosaanu séeréer te gis nañ ne euh, bëriwul fu ñu gisee gambu boo xam ne danañ génnee album wala def ay clip muy daw partout euh, loolu tey jii nii lan ngay wax ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu ndax am ngeen des projets pour lu meles noonu.
waaw problème gàmm nag dafa doon secret boo xam ne ñu bëri xamuñu ko dañ ko séenee mais xam ne buur yi ak président ak ministre ñoo ko xam boo gisee nag bon affaire art musique dem avancé gàmm te avancé dañ ko xamul mais secret la secret boo xam ne képp koo xam ne buur nga wala kilifa nga boo toogee si xew gis gàmm bi di nga xam ne lii affaire cosaan la loolu loolu mooy problème bi daal mais ñàkk xam na rek mais saa ñu yàlla jàppale bu ñu dem ba avancé nañu xam gàmm pour lu lu mu jëriñ suñu tëgg ay ceet ak ay lël ay cosaan ay buur fan lépp xam nga tam dafa doon loo xam ne lu doy waar la mais ñu séeréer xam ne ko ne xëy na olof yi xamuñu ko mais ñu séeréer xam nañ ne si bi secret bi si biir buñ la invité ngay tëgg sabar est-ce que bokk na ak booy tëggal ñiy yore gamb waaw man nag bon passe partout la quoi mais yàlla dafa dogal ñu doon géwél yoo xam ne bon yàgg nañ fii ginnaaw raay ah ah lii lañ gëm nag parce que ay doomu géwél lañu ci lañ judd ñun nag polyvalent lañu bu dee tëgg olof tëggu séeréer tëgg lamb ceet ay gambu nu mu ñëwee rek ñu doxale ko noonu quoi jërëgeen jëf nu mu ñëwee rek ñu doxalee ko noonu ba léegi ñu continuer si ki nga xam moom mooy maire Fass Sarr euh, bu Thialane noonu lañ koy euh, dakkantalee mu nekk artiste boo xam ne car macha allah ndax euh, président de la république yi fi jaar yëpp am na koo xam ne mos nga koo tëggal wala mos na la recevoir wala mos nga bokk si euh, tournée boo xam ne euh, ànd nga seeg moom.
waaw ba ñu sant yàlla julli ci yonante bi président mu ne ànd nañ moom même Macky Sall mi mu jey yegg sax président France bi muy ñëw woo nañu fi yóbbu ñu ba gore man ak moom ak Simon Sène waaw mais est-ce que seen groupe bi mos ngeen a voyager parce que li ngeen def cosaan la te à l'extérieur dañ koy soxla ndax mos ngeen a voyager yéeg avion dem fenn.
dëgg la xanaa waa séeréer séeréer rajo jàppale ñu rek indi ñu yóbbu ñu bitim réew loolu rek la ñuy ñaan yàlla mais diaspora Gambie gi Sénégal jii nii nii fu ne dem nañ fa fu waaye xalaat rek dem nañ fa dañ daal pour ñu dimbale ñu daal yóbbu ñu Europe daal ñu nag suñu groupe daal ñu dem ca rajo ba ak yow mii doo fi des yaa ñuy yóbbu sax di waaw loolu rek la ñuy ñaanati yàlla mais côté yi moom macha allah mokk la rumbax.
rob mokk na rumbax sant ci yàlla nag bu baax a baax a baax.
maire Fass Sarr euh, est-ce que séeréer rek ngay woy wala olof mos na see bokk.
ah dégg nañu olof de.
Mais mais ndax nag mos nga si mais di séeréer la ñu gën a di gën di woy. waaw séeréer la ñuy gën a woy nag.
sa groupe bi dafa complet am nga ay tëggkat am nga ay awukat est-ce que feccikat am na.
macha allah am nañ ko ndax kee toog rek gaynde la ci fecc. ak magam ak ak doomi kii taxaw ak ñeneen fecc rek la ñuy def dem soobee yàlla xëy na da nga mës a tombeek ñoom d'accord mbokk yi ñuy bàyyi xel si séeréer rajo ñu nekk fii si Angleterre tey jii nii nag ñu ñëw ànd ak groupe bu mag bi nga xam ne moom moo nekk Yalyo Gorowa maire Fass Sarr Thialane jiite ko li ñuy def rek mooy ñu dégluwaat encore seen beneen morceau tey nag dara du yomb tey fii nii ndax nag morceau bi nag dañ koy jox Demba Sène ak Mamadou Fall personnel bi quoi ak Tamsir suñu directeur ak Doudou Diouf Layti Sène di koy jox aussi itam Khady Bass ñu bàyyi maire Fat Sarr bu Thialane mu continué waat ak ki nga xam moom mooy tambour majeur bi muy Mamadou Faye ànd si ak aussi ñi nga xam ne car macha allah ñoom Ablaye Ñing fàttewuñ aussi itam Serigne Ñing ñoom ñëpp si groupe bi la ñu bokk kon li ñu def rek mooy dañu continuer ki nga xam moom ma nekk maire Fat Sarr Thialane si morceau bi nga xam ne mu ngi ko ñëw bi mujj nag ñu ngi ko def maanaam Afrique la ko tuddee bi ñëw nag moom moo xam fan laay jëm bisimilah.
ay ay yaa ma Yalyo Gorowa na mo nde ba fiye ay ay yaa ma Yalyo Gorowa na mo nde ba fiye ay ay yaa ma Yalyo Gorowa na mo nde ba fiye ay ay yaa cosaani danwa den bug mo kaña ay ay yaa cosaani danwa den o bug mo kaña ay ay yaa ke daan may jamme na ken yigate ay ay yaa ke daan may jalle na ken yigate patno nano patno nano ay ni ma pafal terer kibida patno moje patno moje kaba moje kira moje ay eri moje to ren kuyai ay ay ay ay ay ay ay jalle na ken yigate Ida pabno, hado jida, daga ojot nali, dabo kuko, katin binne jaw ba token jega ter. Ay ay ay, ay ay ay, kadar we jalle na ken jega ter. Ida pabno, hado jida, daga ojot nali, me dabo kuko, katin binne jaw ba token jega ter. Ay ay ay. Ay ay ay, yo soy la guardia del poco mañana. Pato moye, maru moye, daba moye, tira moye, mañeri moye, todo el mundo. Ay ay ay,
Tigue Fela neex na trop euh, dégg ngeen loola mu nekk ay ya yaal yoo góor waa ah mu nekk morceau boo xam ne euh, nañu nax euh, góor ñi euh, seen groupe bi nag euh, ñu tuddee ko euh, yaal yoo góor waa mu nekk morceau boo xam ne car macha allah moom la ñu indi mère Fatou Thialane euh, morceau bi neex na trop de.
ndax dañoo war a nax suñu jëkkër yi mooy li ma la expliqué sànq rek say neexul mais muñ bi rek moo ko fi yor te góor ñi tam ay jàmbaar lañu lu ñu am ñu ngi ñu koy defal ñun lu ñu am boole ci kon dañoo war a toog rek mu nax suñu jëkkër yi loolu la diggee tey loo si yokk ki nga moom mooy Fadé Sarr si li nga xam ne moom morceau bi ngeen woy mooy yaal yoo góor waa alhamdulilah rabbil alamin DJ kontaan naa ci rajo séeréer parce que boo gisee dégg yàlla yoo góor waa rek yàlla ak suñu jëkkër yi tax fu ñu tàggu ñu bàyyi ñu lu mu guddi guddi guddi daf ñuy bàyyi même sama jëkkër bu ma ne ko tey de dañoo am programme mu ne ma boo féet kon boo xam na ne am na yéene pour bàyyi ma ma dem moo tax ñu di leen di woyal ne ay ay ay yàlla yoo góor waa tey na mu ne ba fii il faut ñu naxanteeg ñoom ba am lu ñu bëgg ndax ñun rek ñun ñoom la ñu am ñoom tamit ñun la ñu am kon boo il faut ñu woyal leen rek macha allah DJ leen yéen yëpp ak yéen Macky Sall bëgg nañ nag nga invité ñu yaag Marème Faye Sall ñu ñëw jàkkaarloog yow
jeex na kooku président de la république il faut mu invité leen palais ñu ñëw euh, def fa aussi tam seen manin ñu dem si ki nga xam ne aussi tam mooy Fatou Thior moom itam euh, morceau bi ngeen woy euh, yàlla yoo góor waa est-ce que am na loo ñu si mun a ñamal yooyu tam nga waxaat.
waaw di jam ak dëgg la comme ni ko Fadé Sarr ak Fatou Sarr Thialane waxee rek ndax xam nga métier boo koy def il faut que sa jëkkër bàyyi la ca lu mu yàgg-yàgg barke bi dina la topp wala li yoo ciy wut yàlla dina la ko may ndax booy liggéey loo xamante ne sa jëkkër àndu na ca àndu ci rek du mën a dem ndax ñu am jëkkër yu baax nag jëkkër yu baax yu ñu wóolu lu mu guddi guddi amul sens interdit ndax artiste amul heure heure buñ ñu wooyee bu bëccëgee lu mu guddi guddi bu dee fajar sax buñ ne aloo rek bu ñu tàggoor ko acca dem leen ndax xam nañu jabar yi ñu am ndax li ñuy liggéey nii am nañ ci jom am ci fulla am ci fayda am ci ngor ànd te ak suñu doom yi moo tax ñu ñaan suñu liggéey bii yal nañ ci yàlla jàppale ba yàlla may ci lu ko kawe suñu jorto groupe bii groupe bu fas jom ndax suñu jëkkër yi bu du woon ndax ñoom duñu yëg si fii ndax ñooñu jàppale ñooñu dooleel lu ñu am defal ñu ko lu ñu am it ñu boole ci lépp ngir ñoom di leen di sant yàlla yal na yàlla wéral seen cër te guddal seeni fan yàlla ñu lekk seen njëriñ bi ak suñu njëriñ bi jërëjëf kooku ngeen dégg sànq nag muy maire Fatou Thior moom itam mu bokk si groupe bi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moom mooy leader vocal bi ñu koy woowee maire Fatou Sarr Thialane muy yàlla yo Góorwa muy groupe boo xam ne car macha allah dégg ngeen morceau yi nga xam ne def nañu ko fi mais toujours rek dañuy ànd ak maire Fatou Sarr maire Fatou Sarr ñu ñëw si li nga xam ne aussi moom mooy ndax. am na benn jour dama bëgg rek euh, nga nga nga nga ñëwal ñu si parce que mu ne sa ñàkk si sa dund si wàllu groupe bi ndax mos nga dem ab xew ba ngay wëñeeku nga ñàkk paas nan nga defoon wala loolu mosoo koo dund.
mosul am barke yonent bi mosul am ñu ngi ci sant yàlla bu baax mosoo dem fenn rek ñàkk paas bi.
paas bañ du ma ñibbisi ñàkk paas pour ñibbisi Ah.
déedéet ok d'accord euh, si biir loolu aussi ndax euh, mos nga dem programme nit yóbbu la fa ba pare lam la waxoon amul.
même bu amul sax ndax àddina am ak ñàkk ñoo yem foog mu toog waxtaan ak ñun mais duñu yeewi ñu daal ci lu mu am ñu jàppal ko ci ndax tey day neex suba day nakari maanaam woykat yi nga xam ne tey jii nii ñu ngi euh, ñu ngi nekkoon nañ fi wala ñu nekkatuñu fi ñu nekkoon ay woykati séeréer ndax am na koo xam ne euh, boo ko déglu woon mu am lu muy def si yow.
dëgg la ñun am nañu ay woykatu séeréer ñu mel ni ñoom mboose coor ñoom xadi seen jàmbaal kooku baasul la dëkk mboose di suñu mag ju baax dëkk ci alaan ak ñoom yaande kodu ak ñeneen ak ñeneen ñoom it seen woy dañ may daaneel dañ may jox xalaat boo xam ne dañ may mais encouragé ñooñu ñëpp kan kan kan kan moo si doon woy bu baax a baax nga yëg ne kii mu ngi woy.
mboose coor boo see moom lay sentir ci ay woyam ndax lu muy woy lu ne di koy teg ci yoon Fadé Sarr euh, ndax nu gii gimwee am na benn woykat boo xam ne bu doon woy da ngay yëg bu baax a baax li muy woy.
ndam boose ko daa nekk ko xam ne suma doom bàjjen la nekk woykat ci suñ dëkk bu daan woy moom di nga sentir ne ndax woy mu tamit boo koy woy na ngay woy loo xam ne nit ki da ciy am leçon nit ki da ciy jàng loo xam ne ëllëg da ciy jëriñu man moo tax buy woy man woyam daf may neex muy mboose coow di sama doom bàjjen alors ñu continuer ko si euh, Fatou euh, Thior euh, moom itam si woykat yi ban woykat euh, moo doon woy vraiment ngay sentir bu baax a baax li muy.
di yem ak benn kàddu gi rek la ñuy wax ndax woy dafa war a yeete woy dafa war a jëriñ nga jàng jàng ci leçon ba bu ëllëgee boo ci duggee comme ni ñu ko defee rek mu mën laa jëriñ ndax mère Mbossé Thior mi la ñuy wax sànq ci ay mbiram moom parce que buy woy day taalif bu lay woy di jëm ak il faut que nga am looy jëg ci sa yaram luy doo xamante ne boo demee ba tëdd sax da ngay xalaat ne mère bi lii muy woy téere la. muy suñu yaay kooku moo yore woon turu Biram Jaara caalaan doon def gamb yi.
mais est-ce que tey génération tey bii nii woy woowa di doon am ba ngeen koy sentir ne taalif la woy bu yeewul yeetewul amatul benn njëriñ ndax loola des na ba nii nii may wax ak yow.
am na ñu koy def ba léegi am na ñoo xamante ne duñ ko def sans dépend ni ñu amee xaalis bi rek. waaye woy bu njëkk te daan yéete. mag mun na cee jariñu gune mun na cee jariñu góor mun na cee jariñu jigéen mun na cee jariñu te nañ ko doon defee nag bu njëkk balaa wax loolu boo koy sentir topp ci di ko def rek bu yàggee diñ ci am jëriñ.
Makayre Ndiaye ñu gën ko xamee ci di jëm ak di koy animé tey jii nii nag ñu ñëw fii si euh, Ndakaaru si euh, kër maire Fat Sarr euh, Thialane di waxtaan ak groupe bi nga xam ne moom moo nekk Yallio Gorowa ñu fondé ko depuis 1994 mu def ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne ñu ngi si métier bi lu ko ëpp ñoom ñu si yëngatu tey nag Séeréer rajo ñëw seet si leen fii nii ngeen di dund ak ñoom en live maire Fat Sarr ndax woy bu njëkk. ak woy tey jii nii bokk na wala woy mu nga fa mu nekkoon ba léegi.
waaw woyu njëkk yi nag moom boo ko seetoo bi ci biir woyu njëkk yi ñoo gënoon a am solo woyu njëkk yi woyu cosaan yu njëkk yeeg yu maam yeeg ñoom ñoom yaande ko du seen ak ñeneen ñëpp seeni woy boo ko dégloo rek am loo ci sentir woyu njëkk yi moom léegi wute nag woyu léegi mais ba tey am na ñu koy def nag woyu cosaan beeg aada beeg ñooñu nga xam ne boo leen woyee mu am seen karaw yaram yi yëpp taxaw mbaa seen rongo ñi tuuru mbaa ñu bu yóbbu la feneen ngeen koy xalaat ba tey am na dëgg la loolu yàlla may nañu ko ba barki démb fii Thiaroye Assis rek kooku daf ñu romb rek muy woy dafa toog xale bu góor bi barke yonante bi di jooy loolu moom yàlla may nañu ko ñun ñii ñu woy la rek sa yaram daw mbaa mu yóbbu la fu sori loolu moom yàlla may nañu ko ginnaaw yàlla ak yonante bi maanaam sa sa sa mbokk artiste est-ce que mosul laa def dara sur scène ba moo xam liggéey la moo xam leneen la ba yàqal la jour boobu événement bi defoo ko wala sa groupe mosu koo dund.
déedéet man gisaguma ko de gisaguma ko daal sama benn mbokku artiste moo war a def loo xam ne dama yàqal liggéey bés boobu déedéet dama ni ma leen di fekkee rek laa leen di jàppee.
d'accord kon dundagoo ko.
dundaguma ko daal.
am na artiste bu mag si Sénégal wala koo xam ne mos ngeen a def maanaam nga ñëw awu ko wala nga bëgg a liggéey ak moom si wàllu musique.
waaw dem naa fi Fouta ànd ak Abou Juba ak Baba Maal Fouta kooku moom am naa ak moom benn yoon boo xam ne ànd nag ñoom.
nga dem si ji fa.
ma dem Suwe ji ba Fouta waaw.
tey bu la Youssou Ndour invité woon si morsoom est-ce que da nga si mën a def dara.
bu soobee yàlla. waaw.
d'accord alors biñ ko posé question bi nee na bu soobee yàlla teg si re kon di leen di fàttali toujours yéen a ngi ànd ak di jëm ak si émission seet si ma tey ñu seet si ki nga xam ne moom moo nekk maire Fat Sarr Thialane ñu leen di fàttali toujours yéen a ngi ànd ak rajo bi nga xam moo ànd ak jamono muy Séeréer rajo ñu nekk fii si Angleterre mun ngeen a ànd ak ñun si bu ngeen demee Play Store ngeen téléchargé suñu application muy Séeréer rajo fu ngeen mun ta nekk si monde bi ngeen ñuy déglu di ànd ak ñun si cosaan yi nga xam ne ñu ngi koy def. ñu ñëw toujours si li nga xam ne moom mooy wàllu musique ndax mos nga def benn clip si wàllu togg yi ngay def wala ba léegi clip bi ba léegi amagul.
déedéet defaguma sama clip bopp mais def naa clip ak Simon Sène jam Casamance ak gamb yi waaw.
ah jam Casamance def ngeen clip bi. booba ban rôle nga si doon joué.
dañoo sol suñu yére cosaan takk suñu njaaj yi yore suñu gamb. waaw muy wane Casamance aan ak ñoom Simon.
est-ce que mos nañ laa jàpp benn jour si wàllu woy wala mosuñ laa jàpp.
di jëm ak loolu nag wax dëgg yàlla moom amagul mosuñ ñoo jàpp ci wuy ndax bu ñu ñëwee ba installé wu artistes yi ñu leen di fekkee rek noonu la ñuy taxawoo suñu heure joué bu jotee rek ñu joué kenn ku ne jël xaalisam aw sa yoon loolu moom amagul ci groupe bi.
ñu ko ne si Fade Sarr Fade ndax yéen a ngi ko wax si njëlbeen bi ñuy doog a door ne ngeen gamb dañ koy léemu ndax léemu boobu noonu chef de groupe bi moo leen koy jàngal wala ku nekk si yéen daf koy mun avant muy tëgg wala ab ndono la.
ah léemu bi nag moom suñuy maam ñoo koy def suñu yaay yi def des fi léegi suñu yaay yi ñoo ñuy léemul ñu yëkkati suñu gamb jox ñu mooy suñu yaay yi nekk caalaan ñoom ñooy léemu gamb yi yëkkati jox ñu ko. gamb nekkul ne dangay ñëw rek tëgg nekkul ne ñëpp koy tëgg waa dëkk ba am na ñu ko mën a tëgg am na ñu ko mënut a tëgg moo tax nekkul ne dangay ñëw rek ne damay tëgg rek tëgg mais tey kenn bu jógee woon fee ñëw tëgg ko ndax am na lu mu mun a def si moom.
am na lu mu mun a def si moom ah mun mun nga koo tëgg noonu rek. mais du pour moom mun naa ñëw rek nit ñu jóge fee rek ñëw rek tëgg mais du pour moom ndax tàmm ko du liggéeyam bokku ci waaw mais amul leneen lu muy yàq si dundam ci dundam non amul dal lu mu yàq ci dundam mais du pour mais moom taamu wuñ ko daal taamu ko waaw.
alors euh, merci beaucoup kon toujours rek euh, ñu ànd ak euh, ak groupe euh, bi nga xam ne mooy Yalyo Gorowa euh, maire Fat Sarr Thialane euh, nekk euh, leader vocal bi euh, tey jii nii nii ñëw fekk si leen fii nga xam ne nag moom mooy euh, Ndakaaru euh, toujours rek euh, di leen di wax rek ne fi ngeen ko jàpp foofu la euh, ñu ñëw continuer ak euh, moom maire Fat Sarr euh, tey euh, boo amoon li nga bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg sa groupe nan ngay taxawee ak fan nga bëgg a yeggi dëgg la ah jàpp rek jàppale leen ñu jàppale ma bu ma sañoon tamit damay dem fi artistes yu mag yëpp dem mais lépp sant yàlla rek waaw ku kuy liggéey nag jërëjëf nga ci bëgg du loolu ak lu la avancé loo ci kanam mais ba tey ñu ngi ciy sant yàlla daal suñu liggéey bi dañ cee sant yàlla bu baax liggéey est-ce que sa groupe bi am na benn bés boo xam ne da ngeen ko koy jagleel pour def anniversaire mos ngeen koo def wala mosu leen koo def.
ah ñu ngi koy wàjjee waa rajo séeréer fu fale séeréer rajo séeréer rajo ne ko daal dañoo bëgg a def suñu anniversaire mbala Youssou Ndour Aline Bayder ñoom ne ñu ñëw jàpp ñu def suñu kii anniversaire alors kon ñaar fukki at ak juróom ñu am nañ seen récépissé groupe euh, di si yëngatu di dem partout si biir Sénégal Gambie fu nekk dem nañu fa mais ba nii may wax ak yéen mosu ñoo def seen anniversaire ñuy talal loxo nag képp koo xam ne séeréer nga te nga leen di dégg te séeréer bi ñor la te nga mun leen a jàppale te nga tane leen nga ñëw dimbale leen ba ñoom itam ñu wane seen bopp euh, sénégalais yi gën leen a xam médias yi euh, gën leen a découvrir partout ñëpp euh, dégg leen moom moo tax ñu talal loxo ñëpp da ngeen kaddu yi dekkul loo xam ne man maa ko wax sama bopp moom moo ko yëkkati kaddu nee na séeréer rajo ñu ngi leen si xaar mais aussi artistes yi Aline Baye Nder ak ñoom Youssou Ndour ñoo ñëpp ñu ngi leen di xaar pour ñu jàppale leen ëllëg ñoom itam ñu mun a def euh, seen i anniversaire euh, dem partout Sorano wala Grand Théâtre ba wane fa culture euh, li nga xam ne moom mooy culture séeréer cosaanu séeréer ndax nag ñoom euh, culture bi ñoom ñoo ne ko nuus ak loxo euh, ku leen mun a wax itam culture bi mu ngeeg ñoom kon mbokk yi déglu rajo euh, séeréer rajo muy séeréer yi nga xam ne tey jii nii ñu ngi dundu si biir euh, euh, adduna bi muy à l'extérieur fu mu munta nekk rek euh, di déglu rajo bi ñu ngi leen di talal loxo ngeen jàppale leen bu baax a baax Mère Fatou Sarr euh, tey euh, sa single bi wax nga ko mooy ngay xaar euh, clip bi wax nga ko mooy ngay xaar ndax bëgg nga liggéey ak yenn organisation yi nga xam ne tey ñu ngi yore ay artistes tey euh, partout mooy Sénégal di bitim réew.
dëgg la ñun dañoo ubbi suñu bunt rek digge ku ñëw bu soobee yàlla mën nañoo liggéey ak yow suñu bunt daal dañ koo ubbi rek. waaw lu mel ni ñëw Wally Seck bàyyiwuñu kenn daal. waaw mais Bercy demagu leen Bercy.
bëgg naa faa dem yóbbu leen ñu fa nel ñooñu ñëpp ñu ñëw jàppale ñuy dem. waaw.
alors euh, mbokk yi kon euh, ñun ñoo ko déggandoo toujours rek euh, fii ba Amérique partout bëgg nañ faa dem participer ji fi nga xam ne euh, nit ñi ñu nga fa mais aussi wane euh, cosaanu séeréer loolu moom moo tax rajo bi nga xam nag moom mooy séeréer rajo euh, dugg fu nekk si biir Sénégal ruq-ruqaan yi indi leen artistes yi nga xam ne car macha allah émission bi nag euh, Sept Sima la tudd muy émission bi nga xam ne chaque euh, samedi 17h ba 18h si rajo bi nga xam moom mooy séeréer rajo kon di leen di fàttali toujours rek yéen a ngi ànd ak groupe bi nga xam ne Yalyo Gorowa ki nga xam ne nag moom mooy njiiti groupe bi ñu koy wooyee maire Fat Sarr Thialane euh, dégg ngeen kaddu yi nga xam ne def na ko mu ànd seeg euh, ñu takku ñoo xam ne si groupe bi euh, boo demee si euh, wàllu tëgg beeg yooyu Mamadou Faye moom mooy euh, jiite euh, mooy tambour majeur bi ànd seeg Ablaye Ñing ak euh, Seyni Ñing mais aussi euh, boo demee si wàllu fecc yi da ngeen si fekk ñoom euh, Sadio Diop ñëpp si biir euh, ñoo xam ne car macha allah groupe am daal dafa complet fu ko waay fëgg ne ko ñëwal mu ñëw fekk si la te dana la indil groupe bu complet boo xam ne da nga kontaan bu baax a baax Euh, Mère Fatou Sarr ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy wàllu moderne bi dañoo gis woykat yu bëri dañuy jël di yore ay guitare di si boole ay clavier di boole ay batterie yow ñu gis la rek nga yore say gamb yore say ndënd di ñëw loolu rek nga choisir wala euh, dans l'avenir bëgg nga defaraat groupe bi ba loolu yëpp am si.
dëgg la ndax ñun ay gàmb rek la ñuy tëgg ànd ak borom dënd yee waaw ñun cosaan rek la ñuy dundal. mais borom guitare bu ñëwee rek mun naa ànd ak ñun mais ñun lii la ñu gën a farataal ay lii gàmb yeeg ndënd yi ndax yéen a ko moom.
waaw ñun ñoo ko moom moo tax waaw d'accord.
mais guitare man nañoo dem ak guitare ñun lépp la ñuy def.
ñoom mun nañoo dem ak ay borom guitare ak musique bu munta ñëw ñu dem ak ñoom mais nag li si gën a bëri moom mooy euh, ndënd yi la ñu yor ndax mère Fatou Sarr euh, tey euh, kiy déglu euh, bu la ñëwoon jëlal la en charge Sorano wala mu jëlal la Grand Théâtre mun nga koo feesal.
dëgg la damay ànd ak góori maan rek góori siga sama càmmeñ ju baax jooju nga xam ne galan rek lay def waa ginnaaw raay ñëpp lay tëggal ñàkk ki ñaan ba bu nga def fay biram penda waagaan dugg dugg waagaan ànd ak ay jarbaatam di sant nag sama dëkkandoor yee sama rakk yu baax yele lu mu am bokk ko ñun dama leen di ñaanal rek gudd fan ak sama xarit yi sama doomu ndey ñii aar bi ñun ay c'est la famille lañu xam nga Modou mooy wanaan c'est la famille waaye ñun c'est la famille la ñuy liggéeyee kii ñoo bokk baay kii maamam bu jigéen a sam papa ñoo bokk ndey ak baay ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne waroon nañoo tewee bés bi kon ñun c'est la famille rek la ñuy liggéeyee dee ci nag sant ci yàlla ak bu baax nag gërëm suñu jëkkër yi di ñaan yàlla nag gudd fan ak wér di la ñaanal yàlla.
Euh, Fade Sarr euh, nan nga gisee rajo bi nga xam ne déplacé wu na tey jii nii ñëw fi fekk si leen ak lan ngay wax ñi nga xam ne ñu ngi leen di déglu.
rajo séeréer kontaan ci moom rek ndax ni mu déplacé wu ñëw ba fii fekk suñu fii ci suñu groupe bii di groupe Farsar Thiala dañoo kontaan ci ñoom di am yaakaar ci ñoom gannaaw yàlla fii ñu commencé nii tey yal nañu àgg ci alhamdulilah rabbil alamin ñu bëgg fa ñu bëgg a egg rajo bi am nañu yaakaar ci yéen dije fi ñu bëgg a àgg yal nañ fi yàlla àggale moom la ñu am ci yaakaar ci ñoom kontaan ci ñoom bëgg yal nañ fi yàlla àggale ñu fekkee jàmm te tal bu dara mit bu bu bu kenn am lu ko jaaxal ci kàddu bi laa am lu may wax jërë ngeen jëf.
Euh, nan nga gisee rajo bi déplacement bi mu def ànd seeg yéen.
ah di jë mag du kontaan kontaan nañu trop trop trop suñu bés bi tey kontaan nañ ci trop ndax am nañu yaakaar ci rajo bi rajo séeréer nekk Amérique am nañ ci yaakaar bu baax a baax yal nañ ci yàlla may lu koy suñu njorto ñun ñëpp ñu fekkee te tal ko ndax lii jafe na ndax ngoo joojo maa joojo séeréeru ligum wax dëgg fa yàlla léegi nag ñoo ngi woo képp koo xamante ne yaa ngi ci diaspora bi te doon doomi séeréer ñu ngi lay ñaan pour nga ñëw jàppali ñu ci suñu maquette bi mën a génnee suñu single ñu ngi la koy ñaanal képp kuy doomu séeréer ñoo ngi ñaan tamit artistes yu mag yi nga xamante ñoo nekk fii Sénégal ñoom Youssou Ndour ñoom Baaba Maal ñoom Omar Pène ñoom Thione Seck ñoom Wally Seck ñoom Kumba Gawlo ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw jàppali ñu ci suñu maquette bii ndax ñu mën a def clip di jëm ak nag yow xam nga fi may waxe yow dañ lay bàyyi ak yàlla di la ñaanal gudd fan ak wér ak wérle te yal nañu yàlla may lu kawe suñu njorto ci barke Seydina Muhammad jërëjëf ñu ñëw si ki nga moom mooy tambour major bi moom itam euh, dernier moom ak lan lay ñaax askan wi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel bu ñu paree nag ñu dem si leader vocal bi mu tëj euh, li nga xam ne moom mooy émission bi.
waaw man nag li may ñaanal mooy sant yàlla rek parce que lii def na loo xam dafa jafe ñaan yàlla borom rajo beeg ñi fa nekk ak ñi fay liggéey bi yàlla yàlla defal leen jàmm yàlla saxal fa jàmm oyofal lépp. aar nag doon loo xam ne rek dafa dafa xaw a yaatu. mais nag maa ngi sant yàlla parce que yàlla buy boole ñuy baax ñi ñi ànd si fula ak fayda seen jëkkër itam doon jëkkër yu jë- yu baax amut ay kilifa. borom rajo yi ñoo ngi koy sant di koy gërëm yàlla yàlla saxal. yombal liggéey bi yàlla jàppale leen ñëpp dàq leen seytaan yi yokk xéwal yi sant ñëpp nag artistes yëpp.
Mère Fatou Sarr euh, noo gisee tey rajo bi nga xam ne déplacé wu na ñëw fii fekk si la yàgg sa groupe euh, ngeen ànd euh, lan ngay wax aussi ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu pour sa groupe.
waaw digge gannaaw ngir maa roog a yàlla fa ëttu leen rek. di la ñaanal yàlla gudd fan ak weer. di ko ñaanal ñëpp nag. di sant doomi aadama ñi fi teew. di sant waa Sénégal yëpp. di sant sama mbokk waa caalaan ñi. sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ma limee damay juum. dañ lay bàyyee yàlla. mais nag bul fàtte de. contrat bi daal na jóge foofu te ñëw fi ñun ñëpp kenn du fi des bu ñuy dem. bu soobee yàlla.
d'accord waaye ñoo ngi ñaan yàlla daal. di ñaanal waa caalaan gudd fan. fan ñi li fi xew yëpp yal na ci yàlla def euh, ndox mu sedd. ñi jiitu yal na leen yàlla yërëm. te yéexee ñu. waaw loolu la am pour wax di ñaan sama dëkkandoor yu baax yi xale yi yàlla laa leen bàyyee. yal nañu yàlla def ñu gudd fan ak jàmm ñu fekkee seen njëriñu doom jërëjëf Dige.
jërë ngeen jëf mbokk yi déglu Séeréer rajo euh, tey jii nii nag euh, ñu ñëwoon fii nga xam ne moom moo nekk euh, si groupe bi ñoo xam ne moom ñu ngi leen tuddee Yàlla yo góor waa maire Fass Sarr Thialane euh, nekk euh, njiit li ñu àndoon ak ñoom une heure de temps li si des nag jeex na tak tak tak kon mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen ak ñu doon déglu di ñuy bàyyi xel ah mun ngeen a ànd ak euh, groupe bi nga xam ne tey jii nii ñu ngi def liggéey bu rafet si biir Sénégal euh, di leen di sant di leen di gërëm bu baax a baax ñu ñëw nag si dernier morceau bi nga xam ne moom la ñu tàggatoog askan wi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu si euh, Séeréer rajo mun ngeen a ànd ak ñun suñu application mooy euh, da ngay dem Play Store nga télécharger Séeréer rajo foo munta nekk si monde bi rek nga am ñu euh, di déglu programme yi nga xam ne ñu ngi daw fii nii si rajo bi di gërëm ñëpp di leen di wax ne ni kontaan nañ bu baax a baax émission bi nag vraiment jeex na ah, bu ñu sañoon nag du jeex léegi ndax nag dafa neexoon lool lool lool lool ñu ànd ak ñoom si li nga xam moom mooy cosaan ak aada bu séeréer euh, tey jii nii nag euh, gis ngeen li nga xam ne assuré nañ ko si wàllu euh, tëgg assuré nañ ko aussi mi si wàllu wax euh, ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm aussi tam kilifa yi nga xam ne tey ñoom ñoo ŋànk rajo bi ba rajo bi taxaw mooy ñu tuddee ko séeréer rajo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li ñu def rek mooy ñu ñëw ànd ak ñoom nag si seen dernier morceau euh, groupe bi nga xam ne moom moo toj jamono moo toj Sénégal muy groupe bi nga xam ne maire Fatou Sarr Thialane moo ko jiite.
Ojojo majojo inombo buya e. Ojojo majojo inombo butane. Ojojo majojo inombo butano. Ojojo majojo inombo butane. E dijama kiyong name inombo butano.